nafaali xayri laahum fi ndakaaru kulla asani jaraxul makaam xalamani rahmaanu fi sabina bianani alxadimu silmadina baraani laahu ladal konaaki min kulli jaalibin ilal maraaki ñu dem waaw ba léegi mbokk yi ci sécurité bi lañ nekk ndax euh, dafa am solo lool ndax euh, ñëpp tey mën nañu ne dañuy bàyyi seen lépp tey nekk ci xëy na amaana ñun ci màggal gi waaye ñoomit yaakaar naa ne ñoom it kenn mënuñu duñu nelaw euh, dañuy sonn duñu tàyyi ci lépp rek gën a fas yéene aar li nga xam ni moo di kër gi ak mbokku taalibe yi nga xam ñoo ngi ñëw ci màggal gi mën a dellusiwaat ak jàmm ñoo ngi leen nii bu baax sëñ Abdou Karim waaw nijaay ñun la ñu ngi sant bu wér a parce que fii moom ku fi nekk moom xam nga li nekk ci kër baay suñu baay Abdou waaw liggéey moo ñu fii indi nag kenn xamewuñ ci ñaax fayda kenn xamewuñ ci loo xam ci naka su noonu man dëgg la ñi samay grand yu baax lañ tey su ma demee campagne ma am accès di ñëw di liggéey ci Marodi fa grâce ak gars yi man ab ndongo laa woon boo xam ne xam nga chrétien laa woon mais ma ma ànd ñoom màggal ñëw ci benn liggéey ba ma demee ci sëñ bi mu jébbalu mu tuubal ma tuddee ma boppam baay Abdou Karim ma tagul sax 6 kon loolu mbégte la la dama koy sante yàlla bu baax te boobu ba léegi maa ngi ci gis ay njëriñ yu bëree bëree bëree bëri sëñ bi amul kenn ku koy liggéeyal seede yàlla di di di di di dellu ci ginnaaw sëñ Bamba amul tànk ginnaaw sànq kanam rek lam kon ñun dañu war a mën a ñëw jaayante bu ñu mënul def suñu bu ñu amul lu ñu joxe ñëw was lu ak def suñu ñax ëllëg nga mën a texe fa jaamu yàlla yi di texe man de barki Alaaji Fàllu Mbàkke laa lay giñal ni billaahi wallaahi laazim boobu ba léegi maa ngi sant bu baax su loolu weesoo nag maroo di fa ñi ngi nii ay Baay Faal ñoo fi nekk ay rijaal ay grand yu baax ay nit ñoo xam ne boo xamul ñu xamal la ràññeewul ñu ràññeel la ànd ak président def tour du tour tour du Sénégal dem liggéey lu métti ba ñuy dem ñaan ay gros bras ay dof lañ mais gros bras du ñu ay dof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

www.wadduha.org ak El Hadji Mara Cissé dund fii koo fi gis dafa jàng ba jéey ay këyitam xam nga ba si sama sama sama grand bi taxawoon ji leen ak sama beneen grand bi fi tax ñun ñëpp ay intellectuel dañu jàng ba yéey suñuy këyit mais nag doomu aadama euh, olof dafa mu baat bu mu wax ne maanaam nit bu buñ lay seen ci gaalu xaj fexeel ba entourement bu fa jegee lu ne dégg nañ ko ba ñuy dem campagne ay dof lañu tekkiwuñu dara mais ba ñu demee policiers yi nga xam ne sax ñoom ñoo yoroon ñoo yoroon nguur gi ak waa GIGN dañu mujjee bàyyi bi parce que bu ñu musoon dugg ni ci benn benn village wala benn dëkk rassemblement bi fay am rek barki Alaaji Fàllu policiers yi mënuñu si ñoom dara ñu ñooy dugg gérer loolu duñ ci xeex duñ ci xuloo kon nag loolu noonu lépp lépp lépp yàlla la sëñ Bamba rek parce que sëñ Bamba boo ko bëggee rek yaakaar ko aduna ak ëllëg aduna ak ëllëg man yaakaar naa ne amoon lépp looy mënti def di kale wala ngay échec amul kon dañuy ñaan yàlla marodi fa marodi fa Sénégal la tey fu fu fu naqar amee wala fu musiba naree am dañuy ñëw taxaw yaa ngi dégg ni nga ñaan nag di ñaan suñu borom yàlla def si dëkk bi réew mi jàmm ñu màggal màggal bu jàmm waaw ñi ngi sant yàlla bu baax a baax waaw yéen di ngeen def mu wax dëgg fa yàlla macha allah ñaan yàlla yàlla def ñu fekk ay déwén yu bëree bëree bëree ba suñuy sët suñuy doom ñëw di waaw ñu doon def ñun ñaar ñu ba ñett ba ñeent ñoom ñooy di ko di ko def sant wér a wér Baye Fall waaw ñi ngi mbokk yi moo noonu gis nga ak sécurité bi nga xam ni taxaw nañ fi euh, les marrons du feu euh, mu nekk loo xam ne am na solo ku ci nekk yëkkati na sa mbégte wax ko tam euh, liggéeyal bi liggéeyal sax sëriñ bi tawfiix ak mbégte gi ñu na dayo kon ñu leen di santaat bu baax les marrons du Samba Dieng foofu ba léegi fii ci kër Cheikh Abdoul Karim Mbacke borom a xarimul axla nafaali xayillaahu fi ndakaaru kulla asani jaraxul makaam xalamani rahmaanu fi sabina bianani lxadimu silmadina baraanilaahu ladal konaaki min kulli jaa إلى المناكب